bokk yeeg xarit yi teewlu solution TV solution info mbégte la ñuy am comme ni ñu ko baaxoo di def altine bu jot ci waxtu wi ngeen ànd ak ñun nag ci l' émission des émissions ñu fas yéene di ci ànd ak Alaaji Sa Ndiogou nga ginnaaw biñ leen nuyoo yéen ñi nga xam ne rek yéen ñuy bàyyi xel noonu la ñuy xuuse ba diwaanu Ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport. ñuy leen ziar leen sargal leen ñaanal leen jàmm ñaanal laale itam sëriñ di mu sëriñ la Lahad Mbacké yàlla suñu boobam yàggal ko fi loolu moo ànd ak defal ko jàmm defal ko njaboot gi wasaare ko ci biir këram te koy ñaanal mboolem xalifa ci biir réew mi yépp mi ngi noonu ñu bàyyi nag moom Ndiogou Mbengue mu nuyu internet yi nga xam ne nii say su nekk rek bu altine jotee rek dañuy daal di xaar li nga xam te ne moo di l'émission des émissions Alaaji maa ngi lay di la ziar. ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziar di ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow di nuyu sénégalais yi nekk ci biir réew ak bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di am mbégte ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci xarala gi yëpp di kontaan ci tout le monde macha allah nuyu nañ bu baax sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziar wér nuyu sëriñ Xaadim ne ci kër gaa njaboot ga yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyu nañ sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarim Axlaaq nuyu kilifa diine yëpp yi nekk ci biir réew mi macha allah mm-hmm. <laughs> noonu la ñuy nuyuwaale euh, Mbaye Assane Mesere sànq rek mu ngi naan xanaa si émission day na ajjuma ajjumay ajjumay Baye Assane <laughs> wallaay day sonn nag <laughs> ajjuma dañuy def man ak moom ak son yi bu mu jóg moom ak son yi bu ñu toogaat ak sëñ Abdou Aziz ñu jóg jomet daal dee ñëw ñu jóg mu daal dee defaat ak moo tax day nelaw rek jomet <laughs> day nelaw rek gaa yi dañ koy fëgg rek mm-hmm. <laughs> ñu ngi noonu ñetti émission lay teg <laughs> dafa métti Assane ne bu paree aw yoonu Touba bi moo tax ah. day sonn buy bëgg a dee ñu ngi koy ziar bu baax a baax euh, nuyu waale du juuf mi nekk ci technique bi Abdou Top Abdoulaye Diallo nuyu itam Soy bu Diop ak euh, Omar Gueye Ndeye ak Soukayna Mbaye alaaji tey nag daañu fas yéene waxtaanee kàddu yi nga xamante ne ni euh, lépp nag euh, jëmul jëm rek ci campagne électorale bi Anta Babacar ci ay kàddu yoo xamante ne ni jëm nag ci. ne gars yi wax ne bu ñu joxee majorité ca assemblée nationale daañu blocke réew mi nee na nag euh, ñi nga xam ne ñooy wax loolu ñoom lay tontu waaye moom dama yaakaar ne daa fàtte ne kàddu yooyu ñoom seen tête de liste di Barthélémy Dias moo ko waxoon fële. ca sa TV euh, émission moom doon amal ak Maimouna Ndour Faye daañu leen ko digtal léegi su ko defee yàlla ji indi ci xalaatam Aliou Sow ca sans limite moom ba tey mi ngi ci gars yi nee na programme moo fi amul. moo tax euh, mu yëkkati ay kàddu ba xasaale ñenn ci sénégalais yi ba traité leen ay crétin euh, ci kanam tuuti daan ci ñëw ci nu mu gën a yaatu ay Omar Faye itam leeral askan wi fële ci Ndoumbélane moom itam ñëwaat na ba tey ci kàddu yi nga xam ne nii moom Ousmane Sonko yëkkati woon na ko daanaka ay bés euh, jëmale ko nag ci ñi nga xamante ne ni wallaay tuddul tur sax nag waaye gars yi dañoo jàpp ne Barthélémy Dias lay waxal. ba ñu jël mbir mi dugal ko nag ci mbirum diine te waa ji ne nañu ba muy wax discours bi àggul fañ ko àggale léegi léegi lañ leen koy digtal ngeen teewlu ko su ko defee nag alaaji indi ci xalaatam dañu koy daal di dooree ak Anta Babacar Ngom kàddu yi mu yëkkati woon euh, lépp rek ci campagne bi di tontu ñenn ñi ñu dem déglu ko te dellusi. ma bëgg dalal seen xel nekk ñi leen di gëmloo nekk waa coalition sàmm sa kàddu bu ñu amee majorité à l'assemblée dañuy bloquer assemblée nationale waaye ku ñu xool ak ku ñu xam est-ce leen leen ne dinañu dem di bloquer assemblée nationale ak di bloquer Sénégal suñu juróom-ñeenti xel xalaatu ko assemblée bu ñu ko yokku du ñu ko wàññi du ñu ko bloquer et bien au contraire bien au contraire donc yooyu ay euh, dañu bëgg déconcentré dañu bëgg jaxase xel yi wax na ko noonu ba nga xam ne Sénégal yi dañuy tiit kenn li ñu diggante ak mooy bu ñu assemblée amul parti politique amul beneen couleur bu dul le du Sénégal vert jaune amul ARC amul PUR amul AGIR amul serviteur amul gëm sa bopp amul taxawu y aura Sénégal ça c'est l'engagement que nous prenons à l'endroit du peuple sénégalais di farata la nit bu la diggee li mu la dig foog mu teg ko et su boobaa ay Aïcha mi ngi noonu alaaji dégg nga kàddu yi Anta Babacar yëkkat moom nag daa mel ni ñoom ci seen biir est-ce que dinañ dégloon te ndax kàddu yi mel na ni Barthélémy Dias moo ko yëkkati woon. waaw xam nga Anta Babacar euh, tànn gi mu mu àndal euh, lu ko ci politique looloo ko koy ah ñii. Euh, duñ ko jariñ te dañ koy yàqal hmm. Hmm. moom d'abord am na <coughs> amoon na avenir ci mu defoon choix hmm. tànn moo tax tànn dafa baax tànn ay àndandoo dafa baax parce que ñii mu àndal euh, dañ koo dugal sax ci li mu ne maanaam yiñ ko dugal di ko wax ne ko lii mooy politique du politique parce que moom wartoon a ñëw pour noonu ak kenn moom dafa amoon benn avantage doon te nekk na xale ba noppi dugg ci politique nga xam ni jaarutoon ci lenn dem na jàll parrainage jóge ci parrainage ñuy dem élection kii li gënoon ci moom sax mooy mu jéemoon a jiite ab liste moom. Hmm. moo doon gën ci moom. bu mu demal boppam. doon nañ ko kiiwal lii muy weddi nag lii du wax joo xamante ne nit ñi dañoo xëy rek sos ko mais wax la joo xamante ni mi ngi jóge ci ñi nga xamante ni ki nga xam ni mooy seen tête de liste wax ji ci moom la jóge parce que kenn adressé wu leen woon yëf yi parce que dafa am ñaar moo fi am dafa am ñu bloqué réew mi ba nguur gi munta doxal loolu moo waral ñu dem ci élection législative ci jamono ji mm-hmm. malgré problème yi yëpp nga xamante ne bi am na état ne ah comme que bloqué nañu yëf yi il faut ñu jéem a dem ci ay élection parce que député yi jéemu ñoo collaborer pour jéem dem def nañ wax nañ pour orienter budget bi ñu lànk ne duñ ko def daal di ne Ousmane sonk daf leen wax lu leen naqari donc. boycotté loolu du am parce que ñoom kenn du leen wax lu leen naqari. Mm-hmm. ñu jóge fa wax leen ne leen lu jëm nga xam ni promesse la boo xamante ni président daf ko defoon askan wi. avant élection. wax leen ne leen dana ko dindi ñu daal di lànk ne duñu ko def parce que ñooñu seeni xarit lañ donc ñu gis ni réew mi demut dikkut ñu xëy wax ne dañuy daaneel assemblée dañuy daaneel gouvernement ñu daal dee wax yooyu yëpp bi loolu yëpp amee nag président jël. ay matukaayam def li nga xamante ni moom la war a def dissoudre assemblée nationale loolu ñu yóbbu ci ñu def loolu bi taxaw ca Maïmouna Ndour Faye comme ni nga ko waxee wax ni bu fekkente ni bi kii nañ leen ñu nanguwu ñoo jël primate dañuy bloqué lépp dara du dox kenn du gouverner loolu kàddu la yoo xamante ni tête de liste moo ko wax donc kenn sosalu leen ko mm. kon moom dafa mel ni dafa dugg ci mbir mi te xamut tëgg mi lan la maanaam dafa ñëw rek di fecc te xamul tëgg mi lan la li gën nag mooy nga balaa ngay dugg ci dara nga xam ko <coughs> xam lii ngay dugg lan la nga xool ñi nga war a àndal ak ñoo war a àndal parce que tànn ay àndandoo dafa baax mais moom dafa mel ni rek dafa ñëw rek sa mboxloo daal dee dugg ci pecc mi <coughs> ànd ak ñoo xamante ni bii leen doo nga leen linké mooy contour nañ ki nga xamante ni kii mooy Ousmane Sonko loolu mooy li nga xamante ni mooy lii ñuy wax nii nag naan bu ñu faloo lii la ñuy def ak laa la ñuy def duñ ñii tey ku leen tegoon ci bopp assemblée nationale. loolu sax mënul ne parce que sénégalais yi ci seen jëmmi bopp ay nit lañ ñu ay dof sénégalais yi mënuñu mobiliser barki Dembo Ndiaye fal président Diomaye ci joxoñu Ousmane Sonko tey Ousmane Sonko laaj leen ñu ko koy lànkal loolu mënul ne sénégalais yi ñu cohérent ñu xam lu ñuy def lañ tey xam nañ liñ bëgg bu fekkee ne politiciens yi dañuy defe ne dañu mën a nax nit ñi ñu ngi nelaw li la koy wan mooy li ci mbedd bi gis nga ko sénégalais yi pare nañ ngir tourner page système bi ah. anta nag mi ñëw ne saraax ci système bi moo ko lu ko naqari moo ko teg boppam kenn tegu ko dara. kon moom dafa juum ci tànneef bi. selon yow sa gis xaw ma lu tax mu dugg ci mu ñëw rek dugg ci système bi hmm. parce que loolu moo ko tànn wa ilaa nan la yëf yi demee parce que tamit bul fàtte ni Anta mi euh, daan na jàppale Macky Sall ci ay jamono kon bu ñëwee tànn yoonu système bi. Mm. donc bul weddi ni ñooñ système bi la. Mm. waaw parce que foofu la xam. mais ñoom ñoo ne ah. fi doon ni président bi dafa cate pour pour mu toog benn place na <laughs> il faut mm. ñoom ñu voter leen majorité. pour réew mi soog am président. xam nga président bu cate ñoom ça dépend ci nan lañ tuddee cate waaw lan lañ tuddee cate ñoom bu fekkente ni bi dañu jàpp ne parce que élection présidentielle moom demuñu ko élection bi ñu dem législative la ngir far ay député mm-hmm. te président bi sénégalais yi biñ ko joxee it jox nañ ko mu toog waaye ngir mu toog ci photo bi mm-hmm. donc faaw ko ñu jox ko assemblée nationale ngir mu mën a toog normal donc moo tax parrain saa yi boo leen di bu ñuy wax ne dafa cate mën nga ko interpréter ne. mën nga wax askan wi ne wax nañ dëgg léegi askan wi nag ñoo war a fexe ngir président toog dëggantaan ba ëllëg luñ ko laaj mu kii ko moo tax ñoom xamuñu sax. mais ñoom dëgg gi seen boor lañ ko fi. non parce que leen fal. majorité ñoom ñoom dañuy politique di dañuy wax di suux maanaam ñu mënut a wax ñoo fa daje. Hmm. seen euh, coalition bi. Hmm. waaw ñu mënut a wax doo nga fa daje. xool leen rek déglu seeni wax Pape Djibril Fall li muy wax moo guddee ak bëccëg day jël guddi ne mooy bëccëg jël bëccëg ne mooy guddi du dëgg na Bocoum buy wax mm-hmm. euh, day jiital xol bi fàtte xel mi Barthélemy buy wax day jiital xol bi fàtte xel mi waaw ant nag moom ku ñëw rek la xamut nu muy doxalee. boo ko mm-hmm. déggee muy wax mu xamoo sax fu mu ci du bële la ci la moom bële la ci li nga xamante ne mooy yëf yi moo taxit gis nga ko. Uh-huh. vraiment mi ngi commencé am na solo euh, macha allah mi ngi noonu en tout cas doy na waar euh, yeneen i kàddu nag euh, yu jibee ci Alioune Sow am na nag lu mu wax sénégalais yi du ñu def rek lu dul bàyyi Modou mu tegal ñu li lay ñu dellu exactement loolu am na programme. non bu dee kii nga wax na parce que man maa ngi suivre te damay bind chaque jour. Hmm. te dama leen di suivre ñoom ñëpp. il n'y a pas de programme tu sais pourquoi il n'y a pas de programme. Hmm. parce que ils n'ont pas besoin de programme. et tout ça pourquoi ils n'ont pas besoin de programme parce que ils ont en face d'eux des sénégalais crétins qui n'y comprennent que dalle et que li leen intéressé mooy diw lu ñu am yaakaar point. mais mais Aliou il faut. booy na ma ko non non il a dit des sénégalais crétins. non le mot là c'est un non il respecter. Euh, na respecter. il retire son propos. non bu doon man maa ko par exemple. c'est pas parce que ay nit ànduñu ak yow wala ànduñu ak diw nga ne ay crétin Thiawma loolu du wax wax boobu wax boobu je répète des sénégalais crétins ñu bari ñoo xam ne li leen intéressé li leen intéressé xam nga mooy lan du dara lu am yaakaar kese ci nit ki waaye xamuñu luy programme xamuñu ko. waaw olof Ndiaye de daana wax ne màkk boo fay dem sax yaakaaral la fa yóbbu alaaji kàddu yi la euh, Aliou Sow yëkkati euh, nee na nag gars yi depuis ñu toog ba tey ak li ñu fi wax yëpp ak effort yi ñuy def yëpp programme amu fi sénégalais yi leen topp daal ak lam ca teg peut-être yow am nga gis-gis bu nga xam ne nii euh, par rapport ak kàddu Aliou yi. moo ko moom moom mooy moom mooy parce que sénégalais la te defe naa ni li mu wax noonu moom ci moom la ne ah. waaw parce que nit ku mën a ñëw adressé ab xeet wax leen yenn moo yi mm. loolu moom nga mais nee na ñenn ci sénégalais après defaraan na wax waaw mais moom la rek <laughs> moom la rek parce que le fait que nga mën a toog ci plateau parce que nit koo xam ni ku normal la buy adressé yenn kàddu yi sénégalais yi dina wax mën nga wax sa dëgg ba pare. Mhm. say gis-gis sans pour autant que nga. vexé ñenn ñi. def ñenn def lenn ñenn ñi quoi boo demee ba mënatoo loolu rek. Mhm. loolu ngay génne yow waaye du keneen. loolu mooy li nga xam ne moom laa koy njëkk a wax ci mbir moom euh, xam nga programme euh, nit ki. da nga war a njëkk a wax ne lan moo tax sénégalais yi am ci nit ki yaakaar loolu nga war a njëkk a teg ci taabal ji pour mën a xam lan moo tax sénégalais yi dalde xool ñenn ne ñii lañ am ci ñoom yaakaar foofu ñaar ñooy ñëw bi ci njëkk mooy discours boo xamante ni bi nit ki wax na la ko nga suivre ko mu lay wax ay discours yoo xamante ni bi yu cohérent la ñaareel bi mooy parcours mooy ki lay wax wax ji luy jaar jaaram sénégalais yi nag intéressé déglu nañ waaye tamit laaj nañ kiy wax kii mooy kan diirëb mu dugg ci politique ba nëga ni nit ñi déglu nañ ko waaye tamit déglu nañ ñi ko xam ñi ko xamoon ci jamono joo xamante ni bi jógutoon ngir politique mais ñi ko xamoon def ci moom ay témoignages yoo xamante ni tey jàpp naa ni ñu bari tey bu ñu leen doon natt ci lu mel noonu lu ci mel ni alal danañ tàbbi ci pax mi ba bi mu ñuy joxoon ñitit waxuñu nit kii lii la wala lii waaye daf ko indi ci njub Sénégal benn problème lañ am xalaat yi bari nañ li war a def kii waaye ñu jub ñu ko doxal lañ ñu amul. c'est loolu la xamut ñi fi yoroon programme ba dem bindulu ay programme lan lañ fi def maanaam teg yàgg nañ ñoo tegal programme bu bu bu jinne teg nañ ko fi. waaye defuñu fi dara. est du loolu la jàpp ni moo fi nar nekk di. wéy ba tey loolu nag. Euh, ñi ko daan def ak ñi bokkuñu. te xam nga li gën a doy waar mooy nit ñi ñëw présenté la programme wax la li ñu bëgg a def fii ak cinq fii ak fukki at ak ñaar fukki at ak juróom ñu wax la niñ ko war a defee wan la ne la huit pole la fu ca ne premier ministre def campagne bu demee wax fii. liñ fi war a def nan lañ ko war a defee mm-hmm. ngay suivre président de la république di génn di doxal ay mbir nga koy gis di ci teg sa bët nga mën a ñëw jàkkaarloog askan wi am doye dik naan ñii amuñu programme kon est-ce que xam nga programme mm-hmm. xam tamit aussi dem programme tamit du question que ni dañ naan diw amu ko waaye ndax moom xam na lan mooy programme ah, moom Alioune Sall nee na mi ngi leen di topp tous les jours moom day bind yore mm-hmm. journalam xam na li xew mm-hmm. ah alaaji kay day bind wala day bindal <laughs> ah. que bind leen ah, daal day bind may tamit leneen la mm. ah ban la ak bindalaate loolu mais c'est que tey bu fekkente ne bi tey moom lii ñuy wax nii yépp tey mm. yow gis nga ko mm. programme la wala du programme. ah programme loolu kay sénégalais yëpp teg nañ seen bët nag. waaw mais moom lu tax moom mi nga xamante ni nee na moom moo ñuy yëgal moom mi am journal mu ne am na journal di yëgle. Hmm. yëgut li ñu gis ba noppi nag mu bëgg a wax ne moo ñuy yëgal mu bëgg a taxaw ne xam nga am na sax ñeneen ñoo xam ne ñu ngi salte nee nañ euh, am na programme waaye PSE la. copier dañoo copier. xam nga ñooñu waxatuñ ni amul programme ñenn ñi ne ñii ñun ñoo ko moomoon sunu programme la woon kon donc léegi nangu na moom fi mu toll moom Aliou Sow fi mu toll nit ñi dañoo dépassé fii nit ñi dépassé nañ amul programme amuñu programme nit ñi kañ léegi dañ naan am na waaye lii la loolu la ñuy wax mais moom mi ngi ci amuñu programme moo lay war ne la Aliou demut nag Aliou Sow nag bi mu ñëwee Sénégal dafa am lu mu xam dafa ne Sénégal dëkk la boo xamante ni bii soxlawut xam-xam di bari. Hmm. Euh, baril coow moo tax Aliou ci coow la miise boo déglu Aliou buy débat coow lay miise quoi maanaam déggal tubaab bari coow c'est que Sénégal nag loola de il faut nga am làmmiñ ñu rëy yaa ngi dégg ba noppi di làkk tubaab. mais alaaji loolu jóge nañ ci loolu de. waaw mais foofu la Sénégal nekk xam nga Sénégal dafa am dafa maanaam yëf yi dafa soppeeku ci diir bu gàtt la soppeeku. est-ce que yëg na ko. waaw loolu la yëgut maam Aliou bi mu yenoo ay bagages am jóge France ñëw daf ne Sénégal il faut nga am. làmmiñ wu rëy dégg tubaab bi mu ñëwee loolu la imposé comprendre nga. Mm-hmm. dans un premier temps am na nu mu ko doon doxalee yaa ngi dégg. Mm-hmm. làmmiñ wu rëy dégg tubaab. <laughs> yaa ngi dégg. waaw léegi nag bi mu ximmilikoo ba gis ni nit ñi nekkuñu foofu mu ne. Mm-hmm. ndekete nit ñi décomplexé nañ faaleetuñu. yenn yi dégg tubaab ah, ay ndongoy daara ñoom ñooy ne ci plateau yi di wax li nit ñi mën a dégg mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. ay comédien di wax lu nit ñi mën a dégg léegi nag moo tax fi mu toll nii tey euh, bi muy wax crétin euh, <laughs> man mii lay wax <laughs> ay yi nag tudd la nag mbaa jàmbo bi. <laughs> abal ma ko tuuti rek. <laughs> Aliou da ngaa dégg sa tur. xam man lay waxal. léegi lu tax nga wax ne yow lay wax déet xam ni parce que dafa jàpp ni ñun li ñu gis ci euh, euh, Pastef li ñu gis ci moom ñoom. Mm. yaa ngi dégg ba nanguwuñu gis leneen lu dul lii. Mm. yaa ngi dégg. Mm. ay crétin la. ah mais kon nag il faut ñu yee. dóor ay soo pour mu yeewu parce que tey kaay ma la pare saa ñu natt ko ci beneen angle. lu tax ñii am na yeneen xam nga am na am na yeneen avantage à côté de yoo xamante ni bi am na yoo xamante ni bi jàppal ci yëf yi nga bañ loolu pare saa mën nañ la adressé que ni crétin <laughs> yaa ngi dégg c'est parce que gis nañ ni kii nan moo tax muy bañ ji kii dafa dof mm-hmm. comprendre nga c'est que yooyu aussi tamit. parfois day am yaa ngi dégg. Mm. non parce que par yenn saa yi Aliou Sow. Ah. genre nit ñooñu nga xam ne ñoom nu ñu fexee nu ci génnee mais dafa am ñoo xamante ne dañoo bëgg réew mi génn ci pas yow nga génn. yow nga génn loolu mooy problème bi. Mm. Aliou bu la déggee na la yóbbu si yoon ndax nee na waxu tudd turu saa njóogu ba tey El Hadj tooñ tooñ baaxul. ñu ngi noonu ñu jeexalee nag ak Omar Faye leeral askan wi. moom nag ma ngay ñëwaat ca kàddu yi nga xam ne moom Sonko waxoon na ko ay fan ci ginnaaw jëm nag euh, ci mbirum euh, Laye Sangara moomule moom nag wax ji yóbbu na ko ci beneen sens peut-être alaaji bu dégloo dina am dégg-dégg bu bu ci am bu wuuteeg moom nam ko waxee moo du ay ca tegal ñu boobu la vidéo Sonko il a dit pire nee na yow Barthélémy Dias saa yow naanee sa bouteille bi. sa wax sa wax da nga yàq say wax. c'est pas le discours d'un responsable. li Sonko wax moo grave ça yow naa ne sa bouteille bi tu ne pas à Barthélemy tu t'adresses à tous les chrétiens. c'est que Omar toi tu es dangereux. <laughs> ah non non non. ah oui ne diine mekk ko mu naan ko yow nga taxaw. ànd àndoo àndoo ak ak maanute nga ñëw ale nga tontu ko ci politique nga tontu ko ci diineem ak ci li nga xamante ni diineem moo ko moo ko sant. donc ce que ton gars a dit est beaucoup plus grave. Omar yaa ngi changé tu fais du coca. non non non non non non ci non mi ngi noonu alaaji man de dëgg yàlla Omar Faye li mu dégg ak li ma dégg man daa bokkul xanaa la peut-être laa foog mu jëmale wax ci moom. waaw ah, Omar Faye wax moom moom de moom moo bëgg a wax ne suñu mbokk chrétien yëpp ñu ngi leen di nuyu. moom de moom moo bëgg a wax ne suñu mbokk chrétien yëpp. ay naan ko kii. moom moo ko bëgg a wax. ah loolu de moom moom mii moo ko wax. <laughs> moom mii moom moo ko wax jarut mu ne ma xucc nii moom moo wax wax ji yaa ngi dégg. waaw. soo ko waxut ñoo xam ni. Mm. daf ne koo xam ni. voilà précisé koo xam ni. te tur ba tey. léegi moom moo ko yóbbuwaat encore ci Barthélémy bi. yamut ci de Barthélemy daal di jël chrétien yëpp nag dugal leen ci moom Omar fay donc ñi jàngu bi kër chrétien yëpp war nañoo jóg ci Omar Faye bi parce que li mu def nii dafa grave parce que nit euh, bu nit waxee mhm. yamal ci li mu wax li mu wax bu dee da ngay atte atte parce que man fi mu doon ci ay waxam rek laa yam de mhm. li mu wax moom man waxuma luy nga xamante ni li Sonko wax waxuma ko man moom li mu wax moom moo indi turu Barthélemy ci wax bi moom moo indi chrétien yi ci wax bi Sonko mandikat lay wax mandikat di am na ñoo xam ne ñu ngi wuyoo musulman ah. doon ay màndikat mm-hmm. ak a bëri am na ñoo xam ne ñu ngi wuyoo chrétien doon ay màndikat mais am na ñu nekk ay musulman du ñu màndi am na ñu nekk ay chrétien du ñu màndi mais moom Omar Faye mm. moom moo jël chrétien yëpp bëgg leen dugal foofu te pourtant waa jaa ngi koy jéem a jubbanti ba wax ne ko sax sàngara yoonu Sénégal daf koy tere ah. lii mu def nii lii mu def nii dafa garaaw maa ngi wax euh, jeune chrétien yëpp ñëpp il faut ñu jóg wax ko mu jéggulu publiquement parce que dafa war a tuub ci kanamu askan wi yëpp jéggulu parce que li mu def nii dafa garaaw nit mënul wax sànni ay waxam nga jël dëkkale ko fii yemoo foofu nga dëkkale ko far nag ca diina ja hmm. diina ji lañ war a bàyyi nag diina ji moom lañ ko war a bàyyi day manipuler ba far dugal boppam am na loo xam ne yoonu diine nekku ci nag alaaji donc ci politique lañ ne politique lañ ne na yem ci cadre politique bu fekkente ni moom dafay diaboliser mu yem ci cadre politique mais bu mu ci dugal diine ji yaa ngi dégg li mu def nii lu dangereux la mm-hmm. wax la joo xamante ni bii wax ju garaaw la wax te pourtant dañ leen di jéem a jubanti ñuy insister non dañ ko war a demander mu jéggulu publiquement <laughs> waaw moom ay waxam la moom ay waxam la moom ay waxam la wax te dafa war a jéggul tuub lii nga xamante ni bi moom la wax parce que amul fenn fu mu lay génnelee Ousmane Sonko tudd diine fenn fu lay génnelee Ousmane Sonko tudd yow nag yaa ko dégg yow mi dégg loolu yaa war a leeral loolu waaw yow yaa moom moo war a leeral loolu parce que lii wax dëgg fa yàlla euh, kii ma jigéen mm-hmm. jégglu war na cee am parce que lii mu wax nii moom dafa garaaw waaw mhm. parce que moom dafa jël diine lëm mu wax ne te pourtant du moom dong de am na yeneen gaa yi wax même discours bi yeneen gars yi wax yooyu yëpp ñoom ñëpp laa wax benn lañ képp koo xamante ni ki wax nga loolu yéen a yem mhm. yàgg lii waaj yi wax yéen a yem mhm. waaw donc nit bu waxee yemal ci li mu wax ci li mu wax loolu dëgg Ousmane Sonko tuddul turu kenn bu fekkee ni dafa gis ay boo yoo xam ni am na ci kuñ ko jëmale boo yee ko jëmale feneen waaye waxul ne diw nii lay def waxu ko waaw yow nag yamoo ci diw waaye danga ngaa yegg yow ci diine jàmbur waaw nit ku ne hmm. dafa am loo xamante ni bii waroo ko xuus di def yëfu politique di jéem a manipuler hmm. man fa ma dëkk maa ngi dëkk ak ay chrétien xam naa ci ñoo xamante ni bii duñu naan. duñu tox duñu def dara. Mhm. respecter seen diine ñu defuñu dara. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. donc bu fekkente ni bi dangay wax waxu politique. nga bëgg a ñëw bëgg a jël. diine ji mandikat lañ la wax aussi tamit il faut faire très attention entre koo xam ni euh, li muy naan kii na ci moom dagan na ci moom mën na ko naan. ak mandikat. bokkul mandikat feebar la. yaa ngi dégg di parce que loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li Sonko wax te tudd turu kenn. mandikat nag am na fépp. léegi lan moo tax ñoom ñu yëpp baat rek. yaa ngi dégg man non mandikat dafa am fépp. <laughs> am na ñoo xamante bi ay musulman lañ. te ay mandikat lañ waaw bàyyi na fii. yaa ngi dégg waaw. léegi moom lu tax mu bëgg a jagleel yëf yooyu. yóbbu ko ci diine. Hmm? na bàyyi manipuler boobu. te mm-hmm. lii dafa war a jéggalu. Mm-hmm. publiquement. Mm-hmm. dafa war a jéggalu parce que lii mu wax dafa garaaw. waa laa ji jéggalu ku rëy du ko def de. tudd diine. waaw da waajoo xam ni balaa muy wax. foo mun waajooju fan lu tax nga bëgg koo wutal yow ne. diw la loolu say waxa du waxu ki nga xam ni. mooy Ousmane Sonko yab diw donc wax nii dafa garaaw. Mhm. donc dañ ko war a demander mu jégglu publiquement mhm. ci kanamu askan wi. Mhm. incha allah mi ngi noonu xëy na daana ci jote ba mën a jéggalu askanu Sénégal rawatina nag suñu mbokk chrétien yi nga xam te ne nii laax na leen ci xanaa rek di bàyyi njóogu mu tàggoo ñi nga xam ne rek nit ñu doon bàyyi xel. waaw di joxante dig daje incha allah rabbi beneen altine ci kàttanu borom. ci kàttanu yàlla yàlla ñu yàlla may fekkee ak tal. di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi doon suivre solution. Euh, di jaajëfal bu baax a baax El du Modou Diouf Abdou Top Abdoulaye Diallo euh, jox leen dig daje beneen altine ci l' émission des émissions.